di yéeg léegi fekk naa naan. xale ngi noonu. ndeysaan Mour Dia. ak Malick Niang. maa la ko wax. ngir ku yàlla baaxal Ipo Ngari. maa ngi ci Kéba toog naa ku baax muy Keba Kanté boobu maa ngi ko waaw maa ngi wàcc damay Keba Keba Kanté Kanté ay ca bébé bis bi rab dankin dan dan xisan tan ay ca ay ca Directement dans Directement dans la France. عمر خيغ باجاكو نيتوكي با نيخنا اي كونتريا اي مامادو خيغ باجاكو نيخنا بغنا تشوكي اي واي واي واي واي بروم كابسو مي من خيغ عجب na ko Ameth Lo na ko ma yëg Ameth Lo gëdd na ko Ameth Lo gëdd na ko Ameth Lo dafa lu leen jote la ñoom ñaar luy seen problème ñoom ñaar waaye Ameth ak Rose ku mën a suivre ci li muy def la moo ngi ne tekki di suivre eh Ameth ak Rose eh Ameth Lo defal na quatre appuis quatre appuis quatre appuis quatre appuis la wala lan la wala lan la am na Ahmed Lac ay waay doomu Modou Lo bi daan nañ ko ay waay daan nañu doomu Modou Lo bi daan nañ ko gat teyul tayul excès de confiance ah, desetul dara ngemb yi tas na ba mag mënuñu mënuñu bëre amuñu koof de ñoom ñaar ñëpp seen ngemb yi dee ngi mel ay pampers si mbay walaay ndeysaan Tea Black bëre baa ba ñu jóge fii dafa seet te ma indaale ma jeget xaftaan laa sol loolu ngay jéem mënuloo ko ba diis arbitre àtte na combat bi neexul arbitre nee leen bëri leen bu leen nu fonto ragal naa ne Aliou Mané numéro 2 day indiwaat xeex touché na ko day indiwaat xeex wax na dëgg téere yaa ngay dagg sëriñ ba na lay sëriñ ba am na lay Aliou mana ngi xeex waaye Thiatou Diokane bëggul xeex bi ñu ngi ñu eh, ngi ñamante eh, jël nañ sa tànk Thiatou Diokane rëccaat na defuñu fi lu extraordinaire mbay defuñu fi tar lu extraordinaire dëgg la yàlla bëgg bu ma xool booy man du mënumaa ñëw ci bi ah waay waay mbir mee toolu foofu mbay jeex na caatu jokkaan nax na ko caatu jokkaan nax na ko dara de ba ay mété ba xool ratatatatatatatat tuy da ko nax talonaas la jeex na da nax nii la ko def

ah mais lamb la rek. lamb la ay seen espoir vraiment ñuy jël espoir yi. fan ngay loxatee booy yi man sama problème mooy Fallou ni mu xamee booy yi ba di leen loxate man loolu mooy sama problème. non loolu staff bi la ak ñoom Matar Ndiaye xam nga Matar moom suñu waay la suñu xarit ay sama mag ji El Hadj Yande Diop ñoom Sam Mbaye Fall association promoteur yi surtout nag dañoo am taxawaay bu am solo ci ñun dañuy jàppale dañuy dooleel kon man ñu seen fay ci loolu ñoom lay njëkkee buur. ndax association bi suñ président Pape dafa baax ñi ci ñëpp di sant seen taxawaay am yéene ñaan yi moo waral lii buur kon ñu ngi sant ñëpp boor boo gisee ñu tëgg mu neex dañuy am mbégte ci waa jaay production ku mel ni am ni Moustapha Modou Parcelle Fallou El Capo ñoom dañoo am liggéey bu am solo bu ñuy def dafa mbeng Xaadim Ndiaye sama frère ñoom Malick Balde Bamba Diouf vraiment Alaaji Yaane sama mag dañuy taxaw di ñu jàppale di ñu dooleel te soxla mais du ñu tiit dara du ñu jàq dara ndax heure bu ñu jàqee ñu ngi suñu wet bu du ñu jàppale kon. Fallou ginnaaw lii Fallou fan la fan la. waaw ginnaaw lii na ñu ngi jëm arène nationale ñu ngi jëm arène nationale ci diggante serpent bu Cambérène ak nga xamante ne nii mooy caatu yaraax le le 22 bii ñu jëm muy le 22 février bu ñu fa jógee ñu gi jëm le 29 mars bee Ibrahim ak ki nga xam ne mooy Belende le 19 avril ñu ngi jëmaat arène nationale ki nga xam ne mooy doomu Jalaaw ak Boy Niang kon yaakaar naa noonu lay dem incha allah. Fallou Ndiaye ëppalkat la rek yow moom noo bàyyi naa bàyyeel rek Aline bés bi wuyu na borom signature ba keroog gis nga fañu ko defee woon day ñëw day stade bi yëpp gis seeni banderole ñu wane liggéey bu am solo bi waa gis nga xam nga yaa ko wax wuyu borom lu yëngu ne li ko ko ëpp doole VIP Fafcourt ni mu mel lu mu dugal loxoom rek yàlla faaw mu am lu mu ci feeñal ndax gis nga fa mu nekk ah dem ba foofu côté boobu rek koo ci dékkoon micro tey da ngay waaru ci jaaxle façon lekk yu leen di indil macha allah jaaxle ci façon fast food bu mel noonu am hygiène ñu du ko doon namb ñu indil leen ko foofu di leen jàppale ci foo mën a nekk boo wootee ñu indil la nga mën a xewlu macha allah ci loo xamante ni ah, prix bu abordable la kon fast food bi macha allah daal yàpp neex la ba noppi. ay ana oto yi xoola papis ay papis booy Papis booy maa ngi lay nuyu maa ngi lay nuyu booy Ibulaay sama oto dinaa ko indi suba dinaa ko indi waaw mais foo affaire toolu gars yi namm nañ la. maa ngi tàngal nag boo mu tàng jër mois de février laay ubbi mais Toubatou laay ubbi sama dëkk. Toubatou lañ jëm. Toubatou waxoon nga ma tabaski mais gisuma la. bii yoon damay ñëw. yaa ko wax de. soobee yàlla dinaa ànd ak Cheikh ñëw tuwaatu. incha waaw da accord nañ ci loolu kontaan nañ trop nag di félicité Fallou njaay nag ndax xale bu yaru la di liggéey liggéey bu am solo ndax nun Bawol dafa yaatu ñu bëri ay mbër il faut que ñu boole suñu doole Assane Ndiaye bi nga xam ne mooy sunu mooy ñu ci jiitu yaatal ko. ñun Fallou Ndiaye ñëw ma ñëw ñu liggéey bawol bawol liggéey bu am solo maa ngi koy félicité bu baax a baax di ko encouragé. mu ngi noonu Fallou Faye. beneen bi moo fi andi. le 29 mars. adversaire ñëwul tey. mën na la si kaw. ñëw na kay. waaw. mu ngi si kaw. mu nga ne kaw seeti beneen. waaw Dombe si loolu ne. dama Birahim bu Yoff waaw gis nga maa ngi nii ànd ak samay doomu ndey ñoom gin seekan daanaan waaw di ñaan ndam rek di woo waa Yoff ak waa tubaab jalaa waa ñangal waa yëpp lépp yëpp waaw ñu leen di sàkku ñaan waaw buur sama gaay nak da ma bàyyi dama Birahim xam nga xaarul ba yëf yi ba yëf yi neex muy soog a ñëw na leer de li wax lu samay wax waa Louga ñoo ko wax Kéba foo toll ak waa Louga nuyu naa la bu baax ñong ngi koy waaj xaar gaay japp dat bi rek yag yag yàgg dinañ dugg si urne neex beure na xari beure neex beure non neex daanu xari daanu si ñom mais keba vraiment tamit yaangi bëgg a napp gars yi punkal yi nekk lugo yëpp keba ñew yorul ay millions yu bari yorul ay milliards ñew ne leen neex na xari neex daanu xari daanu. ah waaw mais dama dama xam li wa lugo soxla te mu wër ma ni ngi ci man motax ma gëm lolu yàgg-yàgg dañuy dañuy dañuy dañuy dem urne ya comme li may wax rek teg attaaya julli tisbaar dem tàkkusaan du ma ñoom timis ñu tàqalikoo maak ñoom ñu tàqalikoo maak ñoom booy Demba booy Demba wàcce nga grand théâtre Demba mais Demba Demba mais Demba lool macha allah lool Demba bëri bay rek quoi Demba ana Demba xarañ lo grand théâtre ñëpp jóg booy lan Papis Momo Diop biro yi mais assalamu alaikum may nuyu ñep à travers dragar Actu yow Bour suma manga suma xarit nga yakarna suma deke micro may wax damay sawar wax ndax duma ne suma manga mais suma bay nga ndax lepp fi la la fek xam nga wa bi may nek xalé ba ni toll ni xama te it li nga ma bëggalon ndax yag nañ tok nga di waxtane ak man lu bari di ma xama tay nak gis nga may ni ñew and ak xama suma xarit son président waaw le futur maire de Louga incha allah rabi ak sama doom nday papi xam nga ñëw seetaan si làmb rek comme que ñun ay amateur lañ ca Fallou moo tuddee woon tout récemment drapeau Kéba kon yoon la tamit mu xewle bisam ñu nit ñu bàyyi suñu lépp xam nga ñëw toog xam nga seetaan comme ñëpp quoi. Kéba xarañ loo yàq min lu xew lu xew Kéba. dama xëy suba teel ñëpp woo ma ne ma leader Louga yëpp dañoo booloo juboo démb. juboo nañu démb. ma ne alhamdulilah. day gën a yomb Fallou leen di boole benn tàkkusaan rek yóbbu <laughs> ñaari doomi yaay ñooy bëre ba ay waay man du ma fii laay toogoo yaaya booy kii man na góore waaw ñaari doomi yaay mbar ci kii waa yaaya booy kii man na góore waaw waaw duma dem fii laay toogo yaaye booy kii na góore sama yaande ngan njaay aa jigi mbar mi baay yaay booy ki baay baay ne dama bëgg liggéey ma lu du lamb yaay damay daan sama doole mbar yaa bari ay waay mbar me bari doole samba yaani gaan jaay yaay ya booy kii mën na góore waaw waaw ay waay man du ma dem fii laay toog moo du sama doom la kii mën na góore waaw ana roonoo yaay amooy mbokk yaayu Abdou Diouf oh, a ah, doomi garmi sama yaa ndegen njaay a ah, jigi na mbar bari doole lool samba yaa ndegen njaay mbar bari doole lool a ah, ñu nge moo bare wax dëgg yàlla yaay booy kii bari doole yow fi lay toogo yaaya booy ki man na góore ana ndooy ndooy lay man du ma dem fi lay toogo yaaya booy ki man na góore champion yëppay ñëw suba incha allah waaye drapeau Baye Balla Mbuub suba la arène nationale Baye Balla suba géwél yëppay ñëw. maa la wax loolu pour géwél. Baye Balla suba waxkat yëppay ñëw. suba damaa woo ba géwélu Ndakaaru yëpp laa woo suba damaa woo reporteuru lamb yi suba damaa woo samay mbokk woo samay xarit woo samay am di jàmm ndax ku nekk sa bés rek nga am. buur géwél yow woo naa la de ndax mënoo ñàkk ci bés bi de buur géwél buur géwél buur géwél ci kiin Bour Gueweul xorom la ci mu mënu cee ñàkk dama laa woo ci bis bi de Bour Gueweul dama laa woo ci bis bi de. wala suba Bour Gueweul naa la ñetti yoon. suba la Sénégal di xam ni que am ngay bokk te kenn ku laari si bokk. ndeysaan le griot du mooy woon. suba lay leer. le griot du peuple mooy woon. suba dinañu àndoo ñëw wuy si la Baye Balla Mbow. Ounthia door na mais Ounthia buy door du xool Sédina Ounthia buy door du xool sport de combat la booy ciblé di door da ngay xool. un chag naturel. Est-ce que naturel, il est naturel. ayca awaay reporter yi tiim lamb te duñu wax yaa leen ci yàlla musal lamb reportage la ñu wax hey Outhia dem na hey Outhia jël naturel Outhia jël na hey doole feeñ na Outhia daan naturel Outhia daan naturel daan na ko daan na ko naturel lu mu bëgg a wax naturel lu bëgg a wax ndeysaan Mamadou Matar euh, xale bi c'est mon fils ah Cheikh Oumar hein man ak baayam on de la même grand-mère et de même grand-père tu as compris

waaw waaw. Mamadou Mbaye mon fils ñu demee au combat. arbitre sifflé waat na defe naa mooy cinquième round Konia féetee seen càmmoñ bay daasa seen ndijoor ah ca xeex leen ma xool mbaa ngeen bëri amateur yi kontaan lu jël Konia da tooñ di génn tooñkat la ñu ngi damantay baaraam ah eh eh bu door bu door bu ko door dafa diis ci moom mais daal saa dafa diis ci Konia mais Konia ba tey mooy bëre ah mais daal saa benn risque wax na dëgg. mais daal saa PDG a l'obligation parce que kat avertissement mu neex mu naqari ko foog mu bëree. su bëreewul lay ñàkk. PDG Konia nañu sigi mbir xew. dafay yàgg tey Baye Balla. combat yëpp a yàgg tey Baye Balla Mbuur. moom moo ëpp laf moo ëpp doole moo ëpp moo ëpp moo ëpp daal. Koñaate jàmbar la. Weda Sia Koñaate. Koñaate Weda Sia. Koña moytul ñu mbaar la. Koña moytul ñu mbaar la. bu génnee lu baax ci benn Asia. da koy génne. xoolal mu ngi xool limite yi. da koy génne pour mu am cinq avertissement comme am na quatre avertissement pour man koo ñaan deux bu mu di yenn certains risques yi. waaw. Abdoulaye Atena lu xew. avertissement pour Bédacia cinq avertissement Bédacia am ko. day jeex day jeex barewul Konia 2 daan na ko code de champ arbitraire

それなの joxe daan mu joxe woon daan loolu maa ko wax. xoolal waa Fass xoolal waa Fass Cheikh Omar nii la ñu defoon ca open presse Gris Bordeaux ba xoolal waa Fass. Cheikh Omar oh Cheikh sama xel dem na ci terrain HLM Fass keroog ba Gris Bordeaux di dajeeg Modou Xarañ Lo open press ba ma naan waa Fass ngay baal ñu ngay baal xoolal tey delloo suñu baal bi Omar.

waaw temps yi mën na ko temps yi kat fi mu dugg wax naa la. waaw am na dara. ah. am na parti waaye temps yi mën naa mën a. barki démb la fa ñëw ñu guddi daal di waaye man du ma tuure ñëw ne ko damay ba war a commencé waat. waaw. wóorlu ci kanam lay leer man Cheikh Omar bëgg naa lii ci làmb làmb lay jokk lay neex j'aime bien lu ma xëy xool ñu ne ñooy cëppi cëppi melaay melaay xale nekk Omar Gueye dara yàlla bëgg naa ko nañu gën a ci liggéeyante booy yi ruumal booy yi mu neex dama booy Grand Yoff la mën a ruumal est-ce que combat bi dina est-ce que dina am na ñëpp génn bàyyi booy yi est-ce que dina am est waaye bu ñu yàq bés bi waaye. arbitre mu ngi laaj ñaari juge est-ce que pare nañu Cheikh Omar Gaye Bour na ko yàlla yaram du Bour Gueweul bi Bour Gueweul ba ba dëkk Guédiawaye la Bour Gueweul bi yàlla na fi yàgg te wér Bour Gueweul bi na ko yàlla yaram te bi fi te wér barke Cheikhul Khadim barke Cheikh Modou Moustapha Mbacké barke Serigne Mbacké Malina yàlla na ko yàlla yaram buur c'est notre collègue ku baaxoon bébé bis Chamar Chamar booy génnal fii merci beaucoup Ada Fass a noonu Cheikh Omar Bébé Bismi ngi noonu lébu bi <laughs> waaye diggante Fass ak lébu gi yàgg na lu tay Cheikh Omar si arbitre baa ngi leen laaj est-ce que pare nañu Bismi Ada Fass kii bàyyi ko Fass kii bàyyi ko Cambérène avertissement pour Bébé Bismi aca na gaaw arbitre consulté na ay Bébé Bismi Ada Fass kii da koo bëgg a jàppal Ada Fass gi xaaxaawam kaw Bébé Bismi da koo bëgg a jàpp Bébé Bismi da koo bëgg a jàpp catu ngemb la catu ngemb la Bébé Bismi am Ada Fass ci defet la jóge ci diggante ba ondu la fu Ada Fass daa bëgg a dugg Bébé Bismi may ko lool Bébé Bismi ngi door ibeer kër gene delloo si waat bëri na déggal <laughs> ay déggal ëffalkat yi Sénégal a mën a ëppal Bébé Bismi Ada Fass dara amagul dara amagul dóor ya xeex ba dóor xeex ba Ada Fass na Ada Fass daan na Bébé Bismi Bébé Bismi jàpp na boppam Bébé Bismi jàpp na boppam Ada Fass daan na Bébé Bismi Ada Fass Cheikh Omar Ada fi mujj ci digganteem ak on le fou la woon on le fou duma ko daan ko te ñu gis Ada Fass bi confiant lépp signature de contrat gis Ada bu ñimee waa Fass nga ko rawatina waa Fass jëloon ma Ada Fass daan na Bébé Bismi kon bu subaa ñu ànd ak yéen ci drapeau de la république le plus aimé de la république le ministre des sports Matar Ba association des promoteurs tuddee ko drapeau lutte mise bi di 5 millions. kon les eh, gars yi Bour Gueweul Cheikh